damaa daw léegi nag problème bi mu gis ci su may duggaat Sénégal damay gën a nekk nice boy gën a nekk nante xaalis bu gën a bëri. Mhm. jongo may gën a taaru ma ñëwaat wane su ma doole mais euh, ba tey ci yonantu rek laa maanaam daw daal ci olof daf ne daw. Mhm. dama mhm. man maa ngi ci réew moo xam ne justice système ba bañ ma dóoree Kaolack dafa noppi ne mu ngi gëstu ma wax ci jumaa ñu jàpp ma tëj ma ñetti weer maam Makhtar Gueye nekk Jamra ku mu bëgg tëj tëj la. ñu nekk man ma nekk contrôle judiciaire liberté provisoire xaw ma lan liberté nan. provisoire. Mmh. waa liberté provisoire leen ma. Mmh. maam Matar na ma bul signé te dara du xew signé wu ma dem dem ci Màkka ñëw. Mmh. dem Amérique ñëw dem Maroc dem Murtani ñaari yoon. ku am doole boobu si nguur gu jubut googu boo jotee ak moom da ngay daw dem ci yàlla ba amaat doole ñëw attaqué ko lii de laa def. ba amaat doole confirmé bi beneen yoon. te lii mooy raison yi. kon moom ñoom Sénégal war nañ ko mën a xaar dikk si waatum fii biir Sénégal. su ma dellu siwaat waat Sénégal nga wax. waaw ah waaw waaw tamit foog ñu ànd Ibra Naajo <laughs> mu tiim na ma wax yi ci réew mi kaay leen bandi baa ngi munul ñàkk. <laughs> munul ñàkk yow tamit. munul ñàkk mais mais bi. Euh, ginnaaw bi nga xamante ni euh, euh, defoon nga vidéo boobu ca seen buzz ñu si bëri ci ustaas yi wala ñu si bëri ci ñenn ñoo xamante ni moom la ñuy wooyee fii ustaas ci Sénégal dañu ne yow génn nga lislaam lislaam daf daal di rey daf laa di rey mm-hmm. bi nga déggee loolu te nga yow nga tuubal suñu borom te nee nga suñu borom rek ngay tuubal ak yonentam bu sell ba nan nga déggee loolu moom tamit ustaas yi nga xamante ne lislaam daan lay rey même boo tuubee sax lislaam rey na la waa danga leen di laaj ndax ñoom seen yaay dina dem àjjana wala seen papa dina dem àjjana laaj leen loolu ñu ragal yàlla te toll. xamuñ seen non mais ñoom nee nañ loolu ci lañ koy gisee quoi. non xaaral xaaral rek xaaral xaaral xaaral da leen di laaj ñoom ustaas yi ko wax. ana seen ndey fan leen ne. ku xamut sa ndey dara xamoo sa baay dara loo wax ci Cheikh Ahmed da am fi te ñeme yàlla. gis nga atte yi ñu ngi fi kenn du ko changé waaye diggante jàmbeeg borom bi ku ci dugg danga ëppal. yonantu ba mu ko defee yàlla daf ko ne hee eh, mu xool ko ba mu xool ko mu ne ko yemal ci mission bi ma la jox te yem ci. Mhm. wooteel man may tànn ku may jubal ak ku ma dul jubal mais di yow yaa koy décider à ma place. yonantu na ko la fekk borom bi di ko bëri njéggal mu jéggal ko la vie continue. Mhm. donc ku ñoom ñoo ñu di wax ci man tey. manque manque bi ma dal ba ma juum kenn ci ñoom amul garanti ne dina la dal un jour viendra. Mhm. donc yenn yi daf dul mbiri nit. nit ku ko wax rek dalay wax da lay wan ne kii eh, li muy woote woo doonu ko quoi. Mm-hmm. loolu rek nga ciy jàng. Mm-hmm. oustaz dafa am lu la war. yow yónni wuñ la ci kenn. waroo waare kenn. Mm-hmm. yow da nga war di fàttali nit ñi. ku war a fàttali na bu demee ba exister bay jël place yàlla di sol mbubbam ak tubayam mel ni yàlla moo takkoon yaayam yàllaa ko jur. da ngay xam ne kii dafa manqué dafa vide nga bàyyi ko ci biir rek mët nekkul ci turu oustaz. waaw mët ci ay comportement la ak compréhension waaye mhm. du ci oustaz de la preuve mhm. bi Sénégal doonee Sénégal ba tey soit di sa oustaz yooyu lan leen jëriñ réew mi mhm. dañuy ñaan a ñaan ñaan ba tabax daar di ñaan di am gàmm di tuddee nit ñi amuñ benn métier mosuñoo formé nit ku tekki dara bu ñu lay jàngal sa sa baay day fay daara mais au moins Cheikh Ahmed Cissé mu ngi préparé benn daara pour doomu garde pénitentiaire jàng gratuitement fan la ko jëlee mooy business bi muy liggéey mu lew ko dong ci lay jël ci xaalis boobu xañ boppam xañ njabootam di ko préparé. Hmm. au moins Cheikh Ahmed a ngi daara parcelle ber góor ñi benn jigéen ñi deux cent trois xale di leen dundal. te hmm. kenn yëgul ko kenn defu ci dara. Hmm. donc kooku noonu nag euh, ñoom li leen yàlla nëbbu ci man moo ëpp. li leen yàlla feeñal mu mel ni lu ñaaw. loolu sax ñaawul ndax tooñ leen ma la wax jéggalu leen ma ma jéggal leen. man bi ma waxee te dëgguwut ci xol bi dama tuubal suma borom. tuubal ñi dee tuubal ñiy dund tuubal ñu juddoogul mhm. fa la coow la war a am waaye nag bu fekkee ne yow ustaasu bës nga Cheikh Ahmed jël bës bi ustaas bu bëgg jigéen nga Cheikh Ahmed jong nga mayu rafet di ko topp di ko wër da koy fiire boo ko fiiree nag mu def njuumte dafay profité naan safara la jëm baaxut dafa tooñ suñu alxuraan dafa tooñ yàlla ngee di wax a wax a wax ba sa xutu xata gi tooy xepp. soo mhm. ci Cheikh dara dara dara. loolu day wane ne yow mato donc ustaas yooyu gàcce leen pour l'islam mm-hmm. xoolal ustaas Alioune Sall ni mu màndoo mm-hmm. daf ne wax ji daf ko tiital ba moom nelawul waaye dafa juum ne ko jéggal pare na ca kooku mm-hmm. amul intérêt ci bës mais soit disant ustaas yi nga xam ne dañuy dem salon soin de naan noo ma gisee di photo am ay snapper yu leen di topp man ma ñëw gën leen a bandi gën leen a doon star Mhm. bu waati di def lu ma saf te wàññiwut ci man da ñu ñeema jaloux boobu moo leen jàpp ko waa gisoo yeneen oustaz naan waaw Sénégal dootoo fi ñëwati dootoo baali ana oustaz rek li di koy baale ko dul baali <laughs> donc oustaz yooyu bu ñu la tardeel moom moom. dëgg la oustaz yooyu amuñu benn cër amuñu benn cër. ayca ah. mhm. mi ngi noonu maam Saliou. ayca booy ci dara. dama euh, gis benn sorte bi nga xam ni Khaliphone Sall def na ko nee na euh, euh, récemment Mbaye defal ko interview. Mhm. mu ne nekk ngeen yendu ngeen ba ci sax fanaan ngeen même lal mhm. mais musul gis. nga euh, euh, jël sa jëbbi teg ko ci sijaada mosulaa gis foo jullee. Mm-hmm. Euh, kon donc boo waxee yenn wax yi du ko jaaxal parce que doo julli est-ce que yow tu confirmes que ni yow carrément li ngay di def ay sorties di di di conseil gars yi di wax ak ñoom ci ci ci yàlla kon di yow doo julli. doo ko appliqué maanaam doo ko appliqué voilà. xam nga nag man du fekk ko xew yi ba pare ma lay tontu daal di la may benn bés bi du ma ko nangu waaye damay wax ne nit ki ak boromam. Mhm. mu julli julliwul loolu moom la ak boromam li bon mooy taxaw ci penc mu ne bu leen julli ci mhm. yonentu daf ne ku ngeen gis muy julli na leen jullit la la ca xol bi bàyyee leen ko yàlla mhm. waaye wax ji dana doon neex nga ne man de kii suma xarit la pendant six mois ñu ngi ànd su ma daan julli moom du julli wala dama ko daan wax kaay ñu julli mu bañ boobaa problème am na mais musuma ko gis <laughs> yow wane nga ne yow it mosoo julli parce que ku doon julli ku dem ba ñàkk sutura ci xaritam ba toog ci pénc mi di ko yàq kon noonu dafa waroon a wax ne su ma daan julli këram moom du julli mhm. wala dama ko daan wax kaay ñu julli mu bañ mhm. mais waxut loolu dama ko déglu ma ree rek jàll mais ñàkk julli boobu da nga koy <laughs> moom ci laa ko fay <laughs> Kali dafa fay. <laughs> dafa fay dafa fay dafa bëgg relevant. dafa dafa fay euh, mais Cheikh Ahmed Cissé dañuy jaay dañuy ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy Mame Makhtar Gueye Jamra euh, dañu gisoon nga def benn publication nga ni da nga jëndoon ci moom ay carte lu toll ak cent mille francs mm. waaye boobu ba léegi carte yi jotoo ci jotoo sa xaalis ngay la carte yooyu daal dugg. Euh, dafa mel ni kii di Mame Makhtar tontu na la ni la carte yi bu ma juumul xaw ma suñu imprimé nangam nangam c'est-à-dire bi boobee boobee bi nga xamante ne intrant nga ko ci Jamra boobu ba léegi bi nga inscrire dafa dafa am xaalis boo fa bàyyeen boo xamante ne pour ay carte la wala lan la ba ba léegi joxuñu la ko. waa xam nga man man maay sëriñu nante yi damaa jënd carte jëndal quarante neuf nante. Mhm. xam ñu ngi doon waxtaan suñ biir quoi léegi maam Maxtaar ñëw rek dàq ma jamra ba pare toog téye boppam ma ne ah lii nag mënta dem <laughs> ci laa ko tendance ma ne leen man de dama waaru jënd naa carte. Mhm. paa bi jël suma xaalis joxul ma carte joxuma xaalis lu ngeen ci xam <laughs> mu ma. <laughs> fay na ma wax dëgg yàlla delloo na ma suma ñaar fukki junni. Mm. mayoon waat naa ko suma benn. Mm-hmm. ndax xale bu jigéen bu rafet laa ko may na ko demal salon. toppatoo sa bopp ndax jigéen dafa war a belli. Mm. Mm. mayewaat naa ko. maa ko mm-hmm. moom xam nga suma xaalis maa ko liggéey ku ma neex laa ko. Mm-hmm. xam nga loolu du fitna. ayca mi ngi noonu mais Cheikh ñu bari nag nee nañ euh, wax dëgg fa yàlla. Euh, mag bu jàng wax mag bu mag bu jàng diine te mag bu am xam-xam te appelé ko mook mbaam mu ñu sëf téere ñoo mhm. ñu ci bari euh, euh, la jàpp nañu daal sa xam-xam bii nga xamante moom la suñu borom jagleel mook mbaam mu sëf téere ñooyam waaw yow sa bopp mhm. suñ tegoon paaka sa baat bi mhm. ba nga xam ne dee moo taxaw ñu ne la waxal mhm. ne Cheikh Ahmed ku am compréhension la ku mën a jéggal nit la di nga wax waaw yow dëgg la dëgg la xam naa ci dara suñ la waxee ku mën a dimbale doomi aadama la yow di nga wax waaw xam naa ci dara suñ la waxee ne ku bëgg yàlla la ci xolam bi dinga wax waaw. xam naa ci dara bu baax. suñ la waxee ne ku tabe la di nga wax waaw. Mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen te man ak yow bokkuñ. Mhm. dëkkuñ. li ma fréquenté sax yàggul matul ñaari at. Mhm. mais xam nga loolu ci man. dëgg la waa naka ñi bokk ak man naka yàlla mi ma moom. nan nga mun a àttee nit ci koo xam ne caméra nga ko gis bu téléphone fayee dootoo ko gis. musoo wax ak moom face à face musoo koo gis kooku nga atte ko loolu ñeme yàlla weesu ko mhm. maanaam ñoom yàlla daf ma defal ay teraanga kaweloo ma ba fa kawe ba pare mu nëbbuma leen mhm. mu ngi leen nëbbee kan mooy Cheikh Ahmed ci waxi kattante yi ñuy dégg kooy bi dafa gudd ak dafa gàtt ci soirée yi da nga ciy tooñ di ci fay loolu la leen yàlla nëbbee Cheikh Ahmed ba mënuñoo xam dëgg-dëgg kan mooy nit ki loolu dama koy sante yàlla te bàyyi mus jàll